fa saxaar gi war a déqi tey jii ci réew mi di train express régional bi yéene kaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ànd ak moom di déqi l'observateur sud du quotidien l'info le mandat ba ci vox populi waxi train express régional bi la ñu xëye bi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne juróomi at ci ren gannaaw ba ñu lancé travaux train express régional bi tey jii ci la ko njiit réew mi Macky war a inauguré fa saxaar ga jaar ba yegsi fi mu yegsi tey jii fu ca nekk yéenekaay bi xëy na fa jaaraat ak ñun ngir duñu ko fàttali mu di koppar yi ñu dugal ci train express régional bi di ñi nga xam ne projet bee tax ñu yëkkatee leen fa ñu nekkoon ak ndàmpaay li ñu war la woon ak ñoom ak coow la ci am ba ci li ñu ne bu saxaar gi daw dana daw fukki fan ak juróom yoo xam ne ku cay wajaasi doo fay dara lu ci nekk mi ngi ñu ko le mandat di laaj ci xëta mu njëkk saxaar seetloo tey jii ci réew mi ndax jar na coono ak ñool ñol yu bari yu ci dund la Sénégal nañu gannaaw xaar bu yàgg beeg date d'inauguration yu bari yi ñu doon jàpp mu doon tuxoo ko randu léegi saxaar ga ma nga ci aw yoonam Sud Quotidien nañu teer bàjjo bi genn ak saxaar gu ñuy xaar yu bari ñi ñu war a indemniser ci projet bi ba léegi des na pont yi mu laaj ak tunnel ni ñu war a mel ak ni ñu mel du benn ca Caaroy am na fa ñetti quartier yoo xam ne teer bi tax nañu raaf journal lay fu mu bind ci xëta mu njëkk ne Macky Sall mujj naa jote ci saxaaram gii di teer ngi ñuy wax teer bi ni mu war a tëddee ay jaabanteem limub client yi mu war a bés bu nekk nekk weer wu nekk ñaata nit ñoo ci war a liggéey lu ci nekk yéenekaay bi xëy na ci dellu si ak ñun ñu dem ci Walf Quotidien seeti fa meneen mbir mu yéenekaay yi xëye mu di projet de loi bi jëm ci criminaliser ak ngóor jigéen ci réew mi li ci journal bi gis moo di majorité bi def nañu ko opposition bi Le Quotidien nañu waa Benno Bokk Yaakaar ñoo far teg seenub loi ci assemblée nationale honorable député Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno projet de loi bi gaa ñi dugal ci assemblée nationale ngir ñu araamal ak ngóor jigéen ci réew mi texte la bu nar gàttu fan bu doonub liir la ne dafa juddu dellu la tribune nañu projet de loi boobee ñu yóbbu ci assemblée nationale déposé nañu ko waaye bu ñu moytuwul ci tiroir fara nar mujje vox populi nañu en coow li jur nag fantasiro xaat ci diggante député yu benn bokk yaakaar yi ak kilifa yu ONG Jamra yi député ay miru ñi ngi di xam ne ci yéenekaay bi ne coow li du ay plénière publique ngir askan yu mën a xam ana ñan ñoo ànd ci loi beeg ñan ñoo ci àndul ñu àndaat delluwaat ci l'observateur ay faux di xaalis bu baaxul moom la journal bi xëyee ba di ñu xamal ne ginnaaw lu jege ñaari milliards ci ay faux billets yu ñu fi jàppoon police bu Médina cib descente bu ñu def keroog ca kër ki ñu jàpp ne mooy cerveau bi fekk nañu fa benn mallette bu def lu toll ci ñetti milliards yoo xam ne lépp ay faux billets la naka noonu nit ay passeport ak ay chèques yu bari Les mi jiite police bu Médina moo ki agent ba ñu doon saisir faux billets yooyu tuuti ko noon musiba dal leen fa ndax benn camion nag moo mbëkk seen wata ci yoon yi police yi ba ñuy def seenub descente ñu bari ci ñoom ay gaañu gaañu la ñuy yóbbaale. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye laataa ñuy tàggatoo dañuy dem fële ca gaar